fàttaliku lu bokk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rawatina bis bi ko fi yàlla indee kenn ku dib jullit mënu koo bañ. yoon wu ñuy war a jaar ba mën a gañe Sëñ Tuubaa gisaguma ko seetlooguma ko. bu ñu sante sunu boroom julli ci yonentam ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi baal xaq ñëpp tey baalu xaq ñëpp yàlla nanu yàlla boole jéggal. di ndokkeel jullit yépp ci bis yi nu nekk ak bis bii jub ak ya ca topp féeg fan yu néew a néew jullit yépp ñu ngi séentu bis boo xam ne bis bu màgg la fa sunu boroom doonte bis yi ko jiitu yépp a tedd te bari ay tuyaaba lool bis bañ ca tànn mooy li ñuy tudde yowmu naxr ak iidul adha yowmu naxr ñi ko gën a moom mooy ñey xaj màkka fii mu nekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku tabaski xar mam cay rendi da ngay dégg ñaan rey xar ab julit du rey day rendi xar mam cay rendi wala bëy wam cay rendi wala xar mu jigéen mam cay rendi bu amul xar mu góor ak tàppaange mam cay rendi bu dee bay noona kawar gu ci nekk yàlla dana ko ca bindal tuyaaba ju muntoone ame fenn waaye <clears throat> dana ko ko dencal foo xam ne it yàq du fa ak am na nag ay charte moom xarum tabaski moom mu ñett la ba ca jëkk mooy du xar mu la neex rek ren di tabaskee ko wutal nañ ko ab boo xam ne bu ci àggagut matagu ko bu ko weesoo nag ci lay gën amut fu mu yem bu ko weesoo amut fu muy yem xanaa mu dem a dem ba màggat lool ba amutut ay suux siditi kese ràgg wopp boobu sax ci sàrt yi la bokk waaye mën na ko yóbbaale waaye daal bu dee kuy tabaski am xar lu mu néew néew la ca siiwoon mooy juróom-ñetti weer waaye am nañu demaat ba wax ne bu amee juróom-benni weer toll na mu war a baax na su ko yéesee nag lu mu mën a toll mat a gut am tabaski bu dee ku amul xar mu góor wala mu jigéen wala muñ tàpp mu wut béyu góor xanaa béy moom daa bokk ci jur gi moo ne waxoon nañ ne jur béy gàtt na waaye jur gi la bokk waroon naa am nag ñu joxe misaal jël bëy wu matum tabaski rendi ko ca pénc ma ñëpp gis ko ñu xam ne bëy ci tabaski yi la bokk su amul wu ji wu góor mu wut wu jigéen wala wuñ tàmm waaye moom faw mu am am at at mu sëkk léegi nag topp ca gëléem topp ca ku munta am xar munta am bëy nu muy amee nag mën naa jaaxal mën naa jaaxale waaye du tee su ma nee am nag nag wa muy tabaskee na am yaari at yu mat sëkk bu dee gëléem na am juróomi at yu mat sëkk mooy bu njëkk bi na matum tabaski ñaareel bi te junjoon naa ko mooy na mucc ayib bum làpp bum làgg bum doon mel ni xel bum doon kawaru kese kawar gën a lapp ca moom nga xam ne mënoo mën ngaa wàññi kawaram yi ñaata la ndax jeex déedéet ci misaal mu gën a jege képp ñu ne ci woon xar yooyee ca biir dama tànn ca ma la gënal ma may tànn moo matam tabaski moo xam daa amum tudd wala daa day da ko da ko jubloo tabaski waaye daal du tànn daal ma ca yaakaaruma mu tànn ca te loolu yaakaar ju gi suñu daa doon wax naan jortul ma njóg la xar ya du fa ne gàññ gàññ mooy tànn moo xam ne saa bu ko génnee ñu ne ko loo jublu ci li nga tànn xanaa delloo ko kay te jël meneen xanaa la ñuy wax ndax yéem ko moomee mooy tànn nag moom ma moo matum tabaski mooy mu mucc ayib dara sikku ca ma ngay gis-gis bu baax cëram yam benn cëram yéesu ca mu wér pelag solee su ba mu ne dàdd xoluñu ko itam waye ñett ñett sartum ñettel ba moy duñ ko ne tebeski rek mu wut mom mom wara wut bëgg lu baax ba tax mu ne nako far defar tay dedet da am waxtu day nek ba ñu julli ba selmal ba ka doon jité wax ak nit ña ba noppi li ci ëpp sax da nay faral di def misalum joxe ndigalul ku dem man nga ko def ndax bari na ci ñoo fañ doon julle fa lañuy di ëndilé ab carte ñu daal di koy rendi foofee kon lu way yàkkamti yàkkamti na mu ñëndiku lu néew néew noo néew boog bu mun munta xaar lañ fay waxit ndax am na ñoo xam ne la ñuy lay fañ jëm daa sore te la dugg day jafe waaye déedéet mag lu ko tax a jóg daf ko war a wax loo jar na nekk ba gis ne ka jiite rendi na ba noppi muy bisu tabaski muy bisu fukkeelu fan bi ci weer yi waaye nag tekki wut ne su ren di wut saa ca saasa rek amutum tabaski man nay wéy di wut bu jant ba jant bi sox bu xëyee ca yoor yoor waxtu wañ rendi woon mu rendi muy benn fan su ko amut nay wéy di wut ba ca démb barki démb la woon tabaski muy ñaari fan nay wéy di wut bañ ne démb bërki dem barkaati dem la woon tabaski muy ñe muy ñeenteelu fan ba maanaam bisu tabaski ak ñetti fan ginnaaw bi la gën nag mooy waxtu ko ko amee mu bañ a gaaw ne na ko dab yi waaye na nekk ba yor-yor mu rendi ko am na nag ci daara yi lislaam yi ñoo xam ne nee nañ rendi guddi dagan na waaye li gën a not fii daal mooy rendi bëccëg waaye bokk yi ku rendi am xaram ba noppi it sañ na caa jëfandiku moo ko njabootam waaye keneen kum mu ca joxit ab cër te bañ koo tudde cërub njëkke la wala cërub bàjjan la wala cërub tànt la wala cërub nijaay da koy joxe rek ngir yàlla waaye du sañit kay koy feesal bu fekkee yambar mu munta fees la wala toll la ni ñëpp waaye rëy naa tiim am xar di ko fees ka ko koy feesalit su nangoo mën naa waxaaleeg moom ci nangam nga may feesale waaye sañu ko ne baat bi ngay yóbbu tànk yi ngay yóbbu su ko soobee nag bu ko feesalee ba noppi ba mu fay ko ci xaalis su ko soobee mu dagg lu am solo jox ko ci coobare coobare ñu xam ne daal du benn fan bi kese ku ko amut ba bis ba ñëwee nay wéy di wut démb la woon tabaski ki démb la woon barkaati démb la woon su xasee ba jàll nag yàlla dogalu ko na negat ba dewen te ñaan yàlla fekk ko waaye tam ñu potoxlu ci ne am naño xamne man ne nañ ko am ba am ko waye ren dañu tak soxna mo tax duñ tebeski ni ñepp waye dañuy yobbu xarma ma bu tebeski jalle ba yap jeex ci kër gi jeex jeex ci kër goge ñu yobbu ko fa nak loolu du diine bis la yo xam yonent sallallahu alaihi wasallam neena bis lek ak naan la lek ku dagan ak naan ku dagan ak tuddu yalla kon julit nañu fexé ba di ci tuddu yalla lu bare bare bari tuddu yalla nak بما تود بما الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله أمد وقته سأبو سلم لي بفكر أنك بقى سكر الوقت وهم كايدا فيت سأبو تيجي تأك جولي ولا منافع لبنا كمان كايدا وقت نانك نانك تبان تاسونا نيجي نك بان ديكو خاده نخ ندان باي بوجك دي كانيو دانا يوخنه تكاي بري ينغ نجامبات بري سابه allahu akbar la ilaha illa alhamdulillah mo gën lepp waye nak diko yuxu ci kaw bay tankal nit ñi nak santani wuñ ko itam na koy mi koy dégg rek kon bok bis yi bis yi allahu akbar la la ilaha illa ak alhamdulillah na ci gor gorlu ndax wén yoon lay ñew ci ak te bu demaatee déwén lay dellusiwaat comme raw raw ñi nga xam ne dañ fay nekkoon daaw di ko fekkee yal na yàlla yële te ko ren nun ñee ko fekkee it yàlla nañu yàlla dimbali bañ mën koo màng nañ ñu ko nañ ñu ko sante ndax te lee ñu am ca lañ ca digge bis yooyu nag am na ay alxaan bu ci wàccoon boo xam ne li tax doo lekk wàññi ëpp a def ci bis yii la yàlla waxoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ajam googee nga xam ne li ëpp ci mu bëggoon a wax te jotu ko woon a wax ca la ko mottilee جلا آية القرآن بواتيون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا جلا وخوان نيت نخ متلنا نخ جوتلنا مولو مباري مولو مدرير أحاك جوتلنا مونة وحنا لما وخور ñu ne ko bam jot sëkk mu ne ndax dégg ngeen ñu ne waaw mu ne sama jaan wàcc na ku ci jëfe jaanam wàcc ku ci jëfe wut man sama jaan wàcc na ca la mujj makka ci ay gët ñu di ko gis sallallahu alayhi wa sallam yàlla noonu yàlla defal dégg ak topp te musal ñu ci seytaane ki pakkam te fekkaloonu ko te yàlla buñ yàlla xañ yool ba yaxfirullahu lana wa lakum wa li saairi almuslimina amin tiliku lu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rawatina bis bi ko fi yàlla indee kenn ku dib jullit mënu ko bañ yoon wu ñuy war a jaar ba mën a gañe Sëñ Tuubaa gisaguma chất lục